kan mooy seeni bàyyi gars yi dal leen gars yi delloo si leen seeni xel te xam ne politiciens yi mënuñoo ñàkk ak ñoom waaye nañ xam fan la ñuy ci ñoom bu ñu tax ñu xeex ku ñu war xeexal bu mu ñu ñuy xeex ak ñu tax ñuy jote kenn ku xam ne war ñoo jote moom te xam ne politique bi ay weer rek ay weer la ay bés des te bu ñu paree ñoom ñoo ñuy seetiwaante te ñun fañ fekkoon ba woo ñu ñuy xeex fa la ñuy delloowaat kon gars yi àndal ak seen xel politicien bi bu ñëwee ci sa kër wax na loo xam ne ni dina la ak say dëkkandoo ci bu loo xam ne lay tàggal ak say dëkkandoo bàyyi ko ndax ku ci am ñoom seen mbokk la ñuy njëkk ak seen doom te loolu à ba léegi ñu koy dund ñoom kon kenn mënu leen a ci loolu loolu laa amoon li may dénk jeunesse Sénégal di leen wax